pour pouponnière ba ngay xam ni Ndella Madior Diouf moo ko daal di gérer loolee nag daal am ab scandale bu fa daal di xew ba sukkandikoo ci yenn ci suñu ay naataango di ñu xamal ni dafa am benn bébé ba nga xam ne dañ ko daal di enlever ci orphelinat boobee nekk foofee ca Sacré-Cœur. aw plainte ba nga xam ni doomu Ndella Madior Diouf boobee daal na ko def foofe ca division spéciale de cybersécurité bu tax ñu daal ci ubbi ab enquête niki ci ba ji benn bés rek daal ciy toftal ñoom police nationale bi. daal di jot a identifier ñi nga xam ne nag ñoo di euh, kidnappeur ñi di daal di kidnappé li nga xam ne nag moo di bébé yi ci seen ay révélation sax di xam ne ñooñee nag am na kenn ku jigéen ak benn vigile ñoom ñaar ñëpp doon liggéeyee foofee ca ñeex bu la Ndella Madior juuf histoire ba nga xam ne nag moo daal di laqatu boobu boobule acte nag bokk na ci benn xale bu jigéen ba nga xam ne jëkkëram dafa nekk bitim réew moom moomee mu ne woon rek dafa nekk en état taxoon sax borom këram doon ko yónnee koppar parfois ngir rek ay visitam ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne jigéen ñu weexul ñi dañ koy daal di soxla mu demee ba xam ne rek ëmb kenn du ko nëbb wante it kenn du ko naxasaale tax moom moomee bañ a feeña rek tax rek mu daal di demoon ca pépinière bu Ndella jox Diouf boobe gu fa adopté benn bébé ca loolee nag ka nga xam ne mu nekk propriétaire bu boobule orphelinat Kër Yërmande daal di rek refuser demande ba nga xam ne ndaw soosee daan na ko def ginnaaw ba borom na bi rek uh, daal di lànkee ca loolee ndaw si it uh, arrêté wul ca la daal di jubali ca ka nga xam ne nag moo di vigile bu ñeex boobee daal di koy rek ne dina ko daal di jox koppar gu toll ci ñaari million ngir rek mu daal di koy jox foofee nag benn xale naka noonu ci saa sax ci la daal di yëkkat lu toll 65000 francs daal di ko koy jox rek ngir uh, avance. naka noonu it ca la vigile bi rek daal di sàccee xale boobee ca orphelinat bi ci ay boru 6 heures du matin daal di koy yóbbul ka nga xam ne nag moo di ndaw soosee bu a adopté bébé bi te mu ne woon dafa nekk en état loolu la waxoon borom këram te ndekete yoo rek nekkul en heureusement ba nga xamante ne si nag ay éléments yu division spéciale de cybersécurité daal nañuy gaaw ci mbir yooyee ba daal di jot a trouvé rek xale bi nga xam ne moom lañ daal di kidnappé woon ba daal di koy delloowaat kookee di Ndella Madior Diouf wante ki nga xam ne moo di ñaari ravisseurs yooyee di ku jigéen ki ak nga xam ne moo di Vigile bi doon liggéeyee ca pouponnière bu kër Yërmande ñoom ñaax ñoo ñooñu jamono ji nag daan na leen place en garde à vue fee ca division spéciale de cybersécurité ñoom ñooñee nag li nga xam ne nag moo di wàllum kidnapping ci lu yàggul dara mbir mu mel noone daal bu kër Yërmande gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw buur kàppe la waaw waaw kàppe de si na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew la eh kàppe daal mi moo wóor li ko ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone man waaw waaw kàppe yi suñu gan gi si na kaay kaay kàppe ma kaay kàppe ma moom sa bopp moom sa alal